Macky Sall moo dul ku ñu àndal Idrissa ma moom ci Thiès sax ñàkk da Thiès Idrissa Seck bu demee ba ñàkk bureau de vote xam nga loolu ànd ak Macky Sall koo ko teg de loolu laa leen doon bañal jëmmi Macky Sall moo jërtu àndal kenn du ànd moom di am ndam xoolal njeeñeen la fa xew bu Ousmane Tanor Dieng a Kër ma jabel la fa xew kàngam yi àndoon ak moom sax ñu ngi ñàkk seen i bureau de vote waxuma laa seen i centre de vote dafa dafa garaaw ay gone yu ndaw jug coalition yoo xam ne yu bees la un an yu quelque lañ lu ko matul lañ tegu coalition mu raafal mbooleem leen yoroon ña nga ne Babacar Diop bu demee ba nekk maire bu demee ba Ndoye Bane nekk maire bu demee ba Ahmed Aïdara nekk maire bu ñu demee ba Ndakaaru nangu nangu ko eh, commune ju ju ju yoo ñu nangu ko ci Abdoulaye Diouf saar ak yooyu loolu lépp Macky la ko teg kenn amatul baasu politique bu dëgër ndax Macky Sall xanaa nga bañ a ànd ak moom. waaye booy ànd ak moom di ñàkk la nga amoon li dal Idriss Seck Thiès neexut kenn ko bokk ci parti réew mi lu ko ko teg ànd ak Macky Sall ñu sacrifier totalement parti réew mi mu toog sa ngéem ngeen nekk fii ci groupe WhatsApp bi di welli welli naan ay ay ay ay Macky Sall Macky Sall seen leader politique dem ba ñàkk bureau de vote am jël deuxième ci ay élection présidentielle vingt pour cent ngeen toog fii ci ay groupe WhatsApp di défendre Macky Sall lan moo ko ko teg da ngeen a war a noppi bu ngeen xamee politique da ngeen a war a noppi wala bu ngeen bëggee défendre parti bi ngeen nekk da ngeen war a noppi yéen ku ne war a wax ba mu des yéen wala boog da ngeen a bokk ci ñiy sacrifier parti pour mu bañ a dund fii situation élection yi toll fii mu toll nii nga dégg résultat yi am Thiès Yankhoba Diattara man fa investi sax ñu naan la gañe nañ ko ñu làbbali ñu fépp bureau de vote Idriss sax ñu gañe ko fa yéen ngeen nekk fii ci parti mi di wala wala naan waa APR waa APR loolu du jom